asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes TV comme ni ñu ko far defee chaque fois rubrique bu bees la je dis que ni moom mooy rubrique bi ngeen di nar a gën a gis si li nga xam moo di sama chaîne YouTube muy maanaam entre nous parlons des faits divers société cliché lépp loo xam ni ñu koy wax stigmatisation yi nga xam ni. dugal nañ ko si li nga xam moom moo di Sénégal maanaam tubaab yi dugal nañ ko Sénégal ba nga xam ne léegi débat la créé na problème yëngal na li nga xam ne moom moo di un peu suñuy suñuy culture suñuy valeur morale lépp loo xam ne mu ngi Sénégal aujourd'hui on va parler d'infidélité des hommes bi nga xam ne mën naa ne cliché la mais maanaam dafa am loo xam ne lañ ko tam góor yi <laughs> mu ñoo gën a ñu ne ay dëmm lañ maanaam si affaire infidélité góor yi ay dëmm lañ maanaam dañ leen si tam soo leen déggee moo wax loolu mooy maanaam dañ ne góor bi euh, mënul yem si benn jigéen góor baaxul góor du yërëm jigéen góor du patati tatata loolu ñu wax li nga xam moom mooy cliché du góor yëpp a mel noonu am na ay góor yoo xam ni malheureusement yàlla noonu la leen bindee mooy des góor yoo xam ni wéruñu góor yoo xam ni dañ jàpp ni euh, waaw ñoom lu leen neex def maanaam abus de d'autorité droit la mais du devoir il faut tamit gars yi di fàttaliku lu bari si loolu noonu. mais am na góor yoo xam ne ñuy sàmm seen jabar am na góor yoo xam ne dañuy dégg seen jabar ñaari façon góor ñoo am Sénégal mooy góor watar bann su ma soo déggee ma ne góor watar bann mooy la majeure partie moom moo di les hommes battus góor yoo xam ni matuñu kilifa góor yoo xam ni euh, jigéen mooy diriger seen kër mu am beneen góor boo xam ni góor la waaw góor boo xam ni moom moom mooy moom mooy góor moom mooy jël décision yi moom mooy sàmm doomam moom mooy éduquer moom mooy wuti moom mooy liggéey en tout cas loolu mooy li nga xam ne moom mooy góor yi am foofu si góor yooyu noonu laa majeure partie góoru watar band bi du am takk jabar parce que xëy na du question buggul beneen jigéen mais parce que il a peur dafa ragal jigéen te jigéen waroo ko ragal da nga ko respecté il faut mu leer quoi tey jii su ma déggee góor ne dama ragal sama jigéen sama jabar sans sans faire rire parce que góor waroo ragal sa jabar da nga ko war respecté cër nga ko war a jox quoi en pour relation bi dox il faut nga jox ko respect mais pas nga ragal ko ñooñu nag la majeure partie dañuy ragal seen jabar moo tax ñooñu xam naa infidélité duñ ko mës a def te la majeure partie infidélité boobu moo gën a bon parce que duñu mës a am courage wax jabar ñi dañuy bëgg a def lii mu am góor yoo xam ne ñoom ils s'en foutent góor yi dóor seen jabar góor yi yuuxu seen jabar waaw su ma xaalis maa ko moom lu ma neex laay def dem wuti beneen gel wala jël xaalis di jaay samba alaar mu am góor respecté yoo xam ne nag ñoom bu per de famille ñi nga xam ne dañ ñëw pour yar seen doom traité seen jabar comme ay ren respecté leen jël li nga xam ne moo di seen rôle lu ñu moom si góor jox seen jabar lu ñu moom si li nga xam moom moo di jigéen d'habitude relation yi ñooy gën a avancé infidélité nag daf bëri ay facteurs yoo xam ne moom mooy tax góor di ko def parce que infidélité mooy du du du seulement dem ànd ak beneen jigéen mais la fait que nga trahir confiance beneen jigéen mooy maanaam des promesses yoo xam def nga ko mujjee ko nangu en certain moment loolu tam bokk na si li xam wax nit ki li nga xam ni gëmu ko wala nga dégg nit nga xam ni gisu ko mooy la majeure partie sa yi nga xam dañuy tas jigéen ñëw gis ne li nga ko promettre amu ci mu dem yoonam te jigéen loo ko tàmmal boo ko gis boo ko bàyyee mu ne la da ngay war mais tey damay ñëw si beneen aspect boo xam ni aussi tamit ñun Sénégal tey jii nii bu fekkee nit dafa ray nit rey bi rek la ñuy gis quoi kii dañ ko war a tëj dafa ray dafa xaw ma lan ak lan ak lan par exemple benn jigéen bu reyee jëkkëram waaw dañ ko war a tëj jigéen yi dañoo bon waaw leer na ma nit dafa bëggoon takk keneen mën mu rey ko en fait ñun téléspectateurs yi dañuy juger taf taf sans pourtant xam parce que appel à la cour ñoom dinañ jël seen temps jéem a xam lan moo xew non ñun automatiquement la ñuy gis rek moom la ñuy bëgg ne loolu moo am. gel bi daf ko ray wala ku góor ki dafa ray jabaram nañ ko tëj te xamuñu lan mooy lan moo am quoi balaa conséquence lan mooy cause bi c'est man fi may xam mooy Sénégal il faut que ñuy basé wu toujours si li nga xam ni moom moo di cause balaa ñuy dem si li nga xam moom moo di conséquence parce que problème boo gis moom mooy tax solution di am tey jii nii solution mënu am te problème amul tey jii nii conséquence munu am te cause amul dama leen jox ay exemple yu bëri yoo xam ni mën na pousser un homme à regarder ailleurs sans pour autant muy concentré wu carrément si li nga xam ne si mooy jabaram te looloo ko war tey jii nii jigéen bu nekk lim lay jox la mooy maquillé bu mu maquillé boppam la pas faar truc seen affaire yooyu ngeen di def seen bopp bi non non wala ay greffage non non mais maquillage de caractère ba moo gën a bon dangay gis benn jigéen boo xam ne mu ngi bëgganteeg benn góor yàlla ñuy dund mu koy leer ni kooku xëy na amul xaalis façon que ni gars boo amul xaalis gel di ñëw këram. gars bi di tëdd si benn matelas pukus gel bi di ko yëkkati foofu fekk fa ëmb yëreem jël ko ne ko eh dama lay fóotal fóot yëre ba mu set weer devant toute sa famille pour donner l'impression juste que moom mooy jigéen bu baax bi moom mooy jigéen bu waaye yaa ma gën a nëw femme bi nga xam ne en ce moment là affaire de parité affaire yooyu du nekk si boppam parce que dafa am lu mu bëgg maanaam li ñu jigéen bu rëbbee <laughs> du sooy dafa am lu mu bëgg togg yekk indi foofu noonu pour la famille ku ñu naa gel bi mën na togg wane atum yépp yi nga xam moom moo dam arme yi nga xam jigéen moom buy rëbbi wala bu bëggee góor jigéen bëggee lu ko lépp lay def sañse ba mu naagis génn jaagar-jaagar yi wane formam wane physique am góor ki jox lépp li nga xam ni góor moom lay bëgg saa yu yeewoo si li moom moo di jabaram waa ji ah mu ngi nii kii laay takk waa ji takk ndaw si ñëw installé wu première six mois lune de miel bëggante yi flamme lépp daw ngeen di kontaan première doom ñëw d'habitude problème yi si première doom bi lay ñëwee première doom ñëw waaw ndaw si ëmb neuf mois wasin xam nga dem hôpital génn commencé sol lu large parce que biir bi lay nëbb ok mën na nekk en certain moment bu bëgg ko jël def ko habitude mooy maanaam tey jii nii balaa muy ëmb femme femme bu naay sexy parce que sexy ak pour sa jëkkër dara daax ko quoi en fait mooy montrer tes atouts à ton dara daax ko au lieu nga koy monter foo di euh, hors hors kër gi nga xëy won li nga xam moo di sa jëkkër dara daax ko ngeen commencé dund mu lay wan léppam physiquement xam nga amul dara nga xam visam mu xam visam ngeen def lu ne ngeen am doom peut-être mu tënk la nga commencé nag changer jigéen bi parce que góor toujours nu mel lay melan waaw xëy na loolu damay jox motivation mooy jigéen ñi bu ñu xamee doom après dañuy dressé wu dañuy rus parce que jigéen moo sensible maanaam dafa am li nga xam moom la ñuy wax insécurité ku góor ki ne ko non yaa ngi cool yaa ngi mool bul xalaat coow jibul xam nga dal ko gel bi non dama ruus man lii mënu ma la ko wan parce que da ngay jàpp ni boo wane sa jëkkër du la bëggati or que yaa ngi gaañ yaa ngi yàq lu bëri si li nga xam moo di relation bi en certain moment ngay ñibbi si sa gaale góor gi ñëw fekk gel bi solatul jean yi mu daan sol ay jeune lañ solatul li mu daan sol pour xam nga waaw accueillir ko muy gis li nga xam moom moo di physique parce que tey jii nit ki boo ko gisee en premier lieu balaa ngay xalaat nu mu mel jikko caractère lépp li nga xam moom la gars yi wax physique bi ngay njëkk a gis après xam nga caractère bi ñëw nga koy xaymam di ko bëgg nobel bi doog a ñëw waa ji wàcc liggéey ñëw fekk ndaw si sol ay dra grand boobu ku di gi tëdd ndaw si sol ay grand boobu li mu habitué woon gisatu ko si li nga xam moo ni jabaram li ko attiré woon si jabaram gisatu ko en certain moment mu commence jug di dem liggéey si car si oto taksi lépp lu mu mënti jël charrette muy gis xale yi jigéen yi Sénégal di jaagar jaagar yi mool ba dee kooku déjà le fekk ni mu perte attention si yow di xool yeneen jigéen yi nga xam ne même bu dee xool la nga defagul dara rek déjà loolu noonu muy wàññi li nga xam ni moom moo di appréciation bu mu amoon si yow attirance bi mu amoon si yow kon ça veut dire que ni cause bi loolu la loolu moo tax góor bari di xool feneen parce que chaque fois loolu kenn mënu ko dindi góor bu demee feneen xanaa ñi xam ne am na ñoo xam nag dañ doye di quoi loolu yàlla moo ne man feebar la loolu il faut ñu nangu leen ko mais góor boo xam ne dem na si biti koo xam ne dafa doon toppatoo jabaram bëggoon jabaram mu dem si biti di wuti leneen xamal ni góor yàlla boobu noonu dafa am lu ko manqué si këram. nga dem takk soxna indi ñu ne laf la trahir en fait infidélité mooy maanaam trahir mooy nit ki lu mu xamul. moo tax góor yi des boo leen bëggee takk jabar dem leen ngeen neen seen jabar damay takk keneen ñu laaj la motif bi nga ne ko lii mooy motif bi lii mooy motif bi lii mooy boo ko joxee motif bi ndaw si ne no ah damay change changer commencé entraîner commencé dem salle commencé def lii commencé def laa non te pourtant mënu nga ko def ba keroog nga wasi ne takk récupérer li nga xam ne moom moo di sa forme bi nga xam ni ki moom la la bëggee je vais vous raconter une histoire dama seetaan benn émission bu tudd euh, euh, c'est mon choix benn émission belge la boo xam ne dañu doon def ay stigmatisation cliché yi la ñuy indi moo am benn africain bu ñu teg foofu noonu laaj ko ne ko tey jii nii sa jabar bu nekkoon ku ku ku mince ngeen sëy après mu commencé jël poids da ngay continuer dund ak moom wala doo continuer dund ak moom waa ji ne dama koy fase ñu ne ko lam moo tax nga koy fase mu ne parce que bu ma koy bëgg ngandul woon dafa sewoon mu pataay dama koy fase question boobu noonu laa bëgg ngeen répondre ma ndax loolu c'est normal wala c'est normal ndax waaj li mu wax gis ngeen si objectivité wala gisoo leen ci objectivité ñu continuer ci li nga xam moo di infidèle kon ça veut dire que ni jigéen ñi des fois bu amee benn affaire mooy maanaam cause bi ngeen di concentré wu. quelle est la solution c'est très simple li nga jaayul au début moom ngay continuer di def parce que c'est la même chose après pour les hommes. tey jii góor bu ñëwoon di la jaay chaque fois di la jox hamburger di la jox kii ngay ndéegi ndéeg jour bu mu yeewoo di la jox pain dambe nga bàyyi ko fa dem sa yoon parce que jigéen mooy li nga xam ni da nga koy tàmmal dara moo tax ñu ne jigéen bu bëgg day xëy même jigéen day miin loo ko tàmmal loolu lay continuer tey jii nii boo doon jox jigéen chaque jour cinq mille francs suba nga jox ko deux mille francs mu ne la da ngay doxaan et c'est normal parce que li nga ko tàmmaloon bu njëkk ba la moo tax sëy il faut ngeen di def très attention sur les choses balaa yeneen affaire di am rapport boo leen fa nekkee maanaam ñaari nit ñu bëggante couple non seulement da ngeen war a joxante respect mais aussi tamit il faut ngeen continuer di xam vie su keneen ki désiru keneen ki loolu mooy continuer ba nga xam ne kooku du am temps sax di dem seeti keneen parce que jigéen dëgg mooy ñu fi ay femme objet du ma femme objet ay féministe jigéen dëgg laa la wax nga ne jigéen nga boo jëlee sa jëkkër teg ko fii xam ngaa ni wax nas sa jëkkër si noonu la maam yi daan def dañ daan nas seen jëkkër si sër léegi nag après polygamie loolu beneen sujet la beneen problème la beneen point la mais lenn xam naa ko parce que y' a polygamie y' a trahison polygamie n' est pas une trahison nekkul trahison bu fekkee wax nañ leen dañuy waaj a tax beneen jabar loolu du trahison parce que trahison mooy def loo xam ni yëgoo ko. mais am na góor yoo xam ne dañuy signé monogame ba pare dem trahir la moo tax ñu dem si yeneen jigéen ñi wala ñuy am benn vice di dem si yeneen xale jigéen ñi parce que li ñuy war si xale jigéen ñi ko seen kër parce que tey jii nii la majeure partie jigéen am benn genre ruuseel di nga nit ki mën nga ko ruus di ko toppatoo vice am bu ruus sa jëkkër dafa am foo koy ak foo du ruusee li nga moom da nga koy jël. kon nga la bàyyi la naan góor yi dañuy infidèle par force sans pour autant fàttaliku lan mooy cause bi. léegi nañu régler cause boobu noonu bu cause boobu régler ko ba mu leer na ni fii ah man jox naa la lii wan naa la lii amul lu ma la defarul parce que jigéen laa majeure partie mooy ki nga xam ni toor bi taf-taf da koy jox góor jigéen rek mooy tas naan kii lu ne laa ko defal fu ne laa ko demal lu ne laa ko waxal waaye def naa lu ne ndax moom bàyyi naa sam bopp ndax moom def naa li ndax moom def naa li ndax moom def naa li ndax moom def naa li ndax lépp lay jël ne moom mooy héros bi moom moo def lépp parce que góor bi jigéen góor bi deful dara kooku mooy jigéen maanaam lii prévaloir ci jigéen mooy égoïsme de ce fait nag prochaine vidéo bi nga xam ne moom laa ñëwee mooy lan moo tax jigéen war a nekk une femme soumise gars en loolu moo nekkoon li nga xam moo di vidéo bi joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen West Show let's go nañ ko tëgg after coole ya oh, si waaye matadi kasara awaga si waaye matadi Saramara, oh yeah, see why eh?